yow mi bëgg a seetlu say mbir wala nga amee jabet wala tension xaw la sonal moo xam mbirum rab la bu góor la wala bu jigéen wala siti dawal gaaw fële ca Céréer nga laajte Mouhamed Habib Mbodj Mouhamed Habib mbooj nekk koo xam ne xam-xamam dafa yëngu ci wàllum seet wàllum ñaan nekkoon fële ca dakaar daal di ñibbisi fii ci Guinguinéo nekk ca diwaanu céeréer boo bëggee xam fan la nekk da ngay dem fële ca jàkka yi kër jóob foo laajte ana Serigne Habib Mbodj ñu daal di la koy wan immeuble Diop Mouhamed Habib Mbodj képp ku bëgg a jokkook moom mën nga woote ci numéro yii 77 346 49 82 wala nga def 77 149 89 60. moo xam danga feebar wala nga bëgg a seetlu wala nga amee jabet ma tension ma siti dawal gaaw dem seeti sëriñ Mouhamad Habib Mbodj fële ca Céréer ca wetu jàkka yi Ababacar Diop. doo hadisul basa doo hadisul basa doo hadisul basa doo hadisul basa. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmani rahim. inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu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 حونك الله يا معين وبك نستعين ربنا علمنا كل ما جهلنا وذكرنا كل ما نسينا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو الخاسم هو الشعيد وصلى الله وسلم على رسول الرحمة وكاشف الغمة وشفيع الأمة وعلى آله والصحابة الأئمة ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم القيامة Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi taala wa barakatuh. mbokk yi ñi sétane fi ci ngir ngi tv fi tv lëkkaloog salum Info TV euh, wat nañ nak ci sen jotaay bi ñuy sallok yeen bis bu jot ci waxtu wi gannaaw bi sante yalla nak subhanahu wa taala julli ci te bi sallallahu alaihi wa sallam ñu ñaanalat lima waxon rek kilifa diine yeb yan bi len yalla subhanahu wa taala yan dal, te muy jital len ci diine ji ñuy diglé ka téré yalla len ci yalla subhanahu wa taala katanal ñoom ñep bañ bañ ci yek seen bop xam ne lu leen yàlla gàll la yàlla itam téeñal leen ko yen leen te woyofal yen bi lépp loo xam ne am nañ ko yéen joo yéen joo joo xam ne am nañ ko rek pour jaam ñi jëriñu <coughs> yàlla na yàlla subhanahu wa taala dimbale leen ba defal leen ci sax lu kawe seen njort ñu ngi woon ci seen émission biñ tuddee alxadisul masaax euh, ñu ngi ci fukkeelu numéro ak ñaar ci tey ñu ngi doon wax ne rek yàlla subhanahu wa taala euh, fonk gum fonk jaam ñi ba tax mu jagleen leen weer tedd wu mag wu tol ni koor ndax xam ne xeetu yonent bi sallallahu alayhi Wasallam. dañoo gàtt fan moo tax sax ci biir fanu fanu koor yi mujjantal bi mu may ñu ci guddi goo xam ne moom la laylatul xadri nga xam lam ca wax nee na ku ko ci jaamu ba mu am nga jaamu yàlla gu toll ni quatre-vingt-trois ans muy junniy weer scientifique yi ni ko calculer nee nañ mooy quatre-vingt-trois ans wala quatre-vingt-deux ans et quelque euh, fan yu mujj yi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom da ci daan def lu baax lool doonte sax moom période yëpp ak jamono yëpp ci la daan def lu baax waaye rawatina weeru koor waaye rawatina fan yu mujj yi dix mujj yi euh, moom sax wax na ne man xaama laylatul xadri <coughs> imaanan waxti saaban gufira lahu ma taqaddama min zanbihi képp ku taxaw guddik laylatul xadri te bang koy def nga gëm sa borom lool gëm sa borom nag mooy gëm ne loo def ci lu baax yaa ko moom loo def ci safaan nit ci sa kaw lay këpp yàlla amu ko yow yow la koy delloo loolu mooy gëm sa borom gëm it ne yomal xiyaam kenn ku ci ne dina ko dikkal kenn par kenn ba nga ba yow sax nga jàpp ne yow kese la mos a bind wa kulluhum aatihi yomal qiyaama fardan maanaam dangay ngay gëm ne yow kenn ku ci ne yàlla dina la woo kenn par kenn kenn dina woote kenn par kenn kenn par kenn kenn par kenn di la laaj loo xam ne yaag moom rek la concerné keneen du fa du fa teew du fa teew keneen du fa teew yàgg moom kese su lay baal baal suy def leneen def leneen waaye da ngay gëm na rek yomal am moom yàgg moom kese yéenay régler seen dossier yont bi nag ne képp koo xam ne taxaw nga guddik laylatul xadri te critères yi ma wax nekk ci yow te ba nga koy defit danga dangaa bëgg lu feesal sa compte bàmmeel mal xiyaam manam sakku tiyaba wax saban lo lay firi nga bëgg yi lu fessal sa compte bàmmeel ci ay tiyaba ci ay bax bax ci ay yiw-yiw neena koka kooka lahu ma taqaddama min zanbihi Yalla. jéggal nako bakaram. ya mu yu jekk ya da dañu wax ne diggante julli jullik suba ba jullik tisbaar farug bàkkaar la diggante jullik tisbaar ba jullik tàkkusaan farug bàkkaar la diggante jullik tàkkusaan ba jullik timis farug bàkkaar la diggante jullik timis ba julli gee farug bàkkaar la xanaa nga def ci diggante ba beneen bàkkaar te tuuboo ko digënté aljuma it ba aljuma for bakkar lah. la xana nga def ci digënté ba encore une fois euh, bakkar ci digënté ba nga def fa bakkar té tu ko digënté koor ba koorit faru bakkar la xana nga def ci digënté ba bakkar té tu ko motax yëndu bi ñaar ñi moom kenn gënu leen a ñàkk chance ki dund ak way juram ba mu faatu te jëriñu ko daara non kooku kooku moom franchement kooku moom kuy ñàkk chance ku ne moom ngay dimbale dund ak sa way jur wala say way jur bu góor wee bu jigéen bi jëriñoo leen dara bañ xëy wan la gannaaw non non loolu ñak chance gënu koo gënu koo gënu koo rëy ak it te te te am na ñoo xam am na ñoo xam ne ñu ngi ne woon géeje rek ba gis kenn ci seen wayjuri mo xam bu goor la am bu jigen ba téral ko ndax ñu ngi actuellement alal yo xamné ne dayo te gisuñ nday gisuñ bay ay rek lañuy dimbalé ak seen bop ak seeni mbokk ya soxna xeyna na yow nga amas tout do jox sa nday do jox sa bay ah kooku mom musiba la deuxième bi euh ku fekke weeru koor ba weer wi dee te woro ci ben fan te amo ben empêchement fekke weeru koor woro ci ben fan te amo ben empêchement nee na ku la gëna a chance sans borom bindu ko yow ku la gëna a chance sans borom bindu da amna ko xamne mu ngi fi woon daaw woor weer bi bam jeex tak mu boole ci di jang alquran boole ci di tuddu yalla boole ci di e, dimbalé nit ñi ci liko yalla wërsegal te téwul koru ren gi fekk ko fi da deful yalla dara lu mu war ko fee jëlee yaw mu bala waye nak nag li yalla mom ci ciobare lay dox motax amna ci lo xam bëggul sax doomu aadama bi di ci fekk ci manam sañ-sañu yalla yi bëggul ben doomu aadama di ci fekk ci parce que lolu sañ-sañama ñu melni rek ku amone soxnam jox ko dépense mu toggu añ ba añ bi noppi ñuy añ mu ne ko ah waaye nag diw waroon ngaa gërëm sa mbokk diw de moo ma mottalil dépense ah man de loolu boo ma ko defee moom dinaa la wëcc loolu boo ma ko defee ma fase parce que xaw ma loo ak diw ba mu lay mottalil dépense sa dépense manqué na kay laaj ma ma complété la yàlla yit loolu la bu la bindee am yum la digal am yum la tere gëna ko fa ñuk bi am koy déggal ak te lim te déggal nit sax mënut a ñak waye ki ngay déggal lam lay wax na méngoo bëgg-bëgg suñu borom yi subhanahu wa taala ki ngay déggal lam lay wax na méngoo bëgg-bëgg suñu borom yi subhanahu wa taala waye déggal ko xam yalla bu bu la bu la digalé li mu digal la lé bu la tayé li mu digal la ko ah koku musiba la koku mom musiba la motax yënd bi la wax man xama laylatul xadri imaanan waxtisaaban xufira lahu ma taqaddama min zanbihi képp ko taxaw laylatul qadri diko ko te bang koy def nga gëm yalla lool yemale woo kenn wala wala yemale woo koog dara te nga di def rek ngir fessal sa compte bàmmeel ni ma ko waxee won sàkku tiyaaba nena boko yegge ya gitu, soko yegul ya yalla ko jéggal na la sa mbolem bakkar yi nga jital won motax amna na ci wacc يالا سبحانه وتعالى دا وخني بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإسم ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر mu ne innaa naka ñun yàlla subhanahu wa seen borom anzalnaahu ñoo wàcc alquran kañ fii laylatil qadri ci bisu laylatul qadr mu ne yonente bi wa maa adraaka lu la xamal maa laylatul qadri luy laylatul qadri fii yàlla subhanahu wa bu waxee yonente bi wa maa adraaka rek xamal ne xamal koy wax la ca topp su ne ko wamaa rek xamal ne da koy wax la la ca topp waaye bu ko ne nag wamaa yudrika xamal ne day jàll du ko du ko ci leeral dara wamaa yudrika la allahu yazakka aw yazakkaru wamaa yudrika la ala saxata du ko leeral dara fii nag dane ko wamaa moo lu la xamal yow yonent bi maa laylatul xadri luy laylatul xadri mu ne ko nag laylatul xadri yalla diko ko gëna leral ne ko laylatul qadr yi laylatul qadr dal guddi gi min alfi shahrin mo jaamu ci yalla boo ma ci jaamoo ba ma nangu ko moo gën nga jaamu ci yenen weer yi ba ma nangu ko junniy weer guddi gi rek ben guddi gi boo ma ci jaamoo ba ma nangu ko moo ma gënal nga jaamu mo ci yenen weer yi yoon yoon weer wa nga jaamu mo ci yenen weer yi weer ma ne moom la scientifique yi di wax ne mooy quatre vingt trois wala quatre vingt deux ans et quelque waaw mu ne nag bis boobu tanazzalul malaayikatu malaayika yi dañuy wàcc def genre observation di xool ñiy dundal guddi gi di observer di xool barab bu barab yi ñu koy dundalee yu ne fu ne ñu taxaw fa pointé di xol war ruuxu fiiha ak sen sang te moy jibril and ak sen patron jibril ñu pointe di xol waye nak buñu tepp tepp rek diko def ñom buñu def neena la te du ndigalu yalla ñom la yahsuna allah ba tay ma ñom luñu def rek yalla leen ko ndigal buñu def ci sen coobare bop motax li yit dañ koy def bi isni rabbihim ndigalu sen borom lañ koy defee te yàlla nee na min kulli amrin mbooleem mbir muy war a xew ci at mi ci la koy dogal kii ku gudd fan lay doonam kii ku gàtt fan lay doonam yàlla nañ ci yàlla musal kii alal ji ma ko joxoon sant ko pour mu dimbalee jaam ñi est-ce que du ma ko wàññi jox ko ku ko mën a ku ci mën a dimbalee wala déet kii dama Yoko alaji ji parce que gis na ne li ko ko ci def na ci sax euh ma ko ci santul ci bax bax kon dama yok alal ji ainsi de suite ainsi de suite yu bari yu bari bëri na ci guddi gogou lay xew yu bari yu bari ci guddi gogou lay xew mune nak suñ ñewé gis ñi dundal guddi gi ci jang alcorane tudd yàlla ak ainsi de suite dañ leen di ñaanal salaamun hiya ah yéen de yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen yàlla na yàlla jàmm yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen yéen de yàlla na leen yàlla suturaal yéen de yàlla na leen yàlla fay yéen de nangam nangam te ñaanu malaayka souvent yàlla du ko delloo ndax ñoom ci ndigal rek la ñuy dox te wa annahum xalaqahum min nori rabbuhumul baaxi bi laa takk ñoom ci leer lañ leen bind ci lu amul benn gàkk-gàkk ñoom malayka yi moo tax lu ñu wax yàlla rek souvent mu def ko lu ñu wax yàlla rek souvent mu def ko duñ lekk duñ naan duñ ànd ak soxna yi duñ dem toilette duñ tour ndox ainsi de suite ñoom daal yàlla rek lañ dëgmal moo tax lu ñu wax yàlla rek yàlla participer fekk si fekk si leen ci waaw motax dañuy ñaanal nit ñi dundal laylatul qadr salamun hiya yalla na jàmm yalla nek ci yeen ci guddi gii ñi dundal guddi gii daal na jàmm yalla nek ci yeen yalla na sutura si yalla nek ci yeen lepp lu ngeen di sentu ci baax baax yalla leen ko gëna xam yalla na leen ko yalla defal nangam nangam hatta mat layl fajr ba fajar di xar ba fajar di xar bi mu ñëwee bi mu ñëwee nag yent bi sallallahu alayhi wa sallam Aïcha soxnaam si benn soxnaam su bëri xam-xam ñu wax sayyidatuna Aïcha laajoon na ko xam nga laylatul xadri yent bi dane rek dàkk leen ko ci fan yu mujj yi waaye kenn xamul ban ban jour la rek dàkk leen ko ci fukki fan yu mujj yi waaw leen ko ci fukki fan yu mujj waaye kenn xamul kañ la dañuy nattale rek ñu bëri nag ci ñaar fukki fan yee juróom-ñaar lañ koy def baax na sëñ touba it mom da koo ne akajun akajun nakajun sakun mayas mom da mom fof la ko tënk benn tënk la jukku la akajun nakajun sakun mayas manam jour bi jour bi njëkkee um rek manam jour bi weer bi feñe rek automatiquement ñom japp nañ laylatul qadr kañ la manam ñom dañu gëm ne day bouger té lolu imam Shafi moo ko njëkk wax wala ko jëlé néna wër koor ni adi di bouger wër koor yi di ko noonu la laylatul xadri di toxoo waaw ni koor gi di toxoo ay temps mu nekk juin ay temps mu nekk juillet ay temps mu nekk ainsi de suite nee na laylatul xadri noonu lay toxoo moo tax moom euh, moom la jël tënk ko waa ñi gën a bari nag fii ci réew mi ci guddi ñaar fukki fan yi ak juróom-ñaar lañ koy defee te yonent bi it wax na ne sama xeer duñ dajee ci mbir ñu ci gën a bari te yàlla du leen ci fekk si moo tax lu ci ne baax na waaye daal dañoo bëgg a wax ne laylatul xadri daal du benn guddi boo xam ne dañ koo dàkk ci barab du benn guddi boo xam ne dañ koo dàkk ci barab waaw du benn guddi boo xam ne rek dañ koo tënk ne guddi nangam la déedéet day toxu yént bi sallallahu alayhi sax dane rek làmbu leen ko ci fukki fan yu mujj yi ne làmb leen ko ci fukki fan yu mujj yi ndax la maanaam yàlla souvent njëriñ njëriñ yim ñuy yim ñuy dëkk da koy làq gisoo ba ci nitam yi sax wali yi sax daanaka kenn xamul kuy wali yoo ku dul dañuy rampaloo nii di dox rek kenn xamul moo tax ku manoon teral ñëpp rek fonk ñëpp maanaam moom yi ëpp njëriñ ci moom nga xam ne tey boo ci tombee rek yàlla mun naa defar say mbir defar goo xam ne day jéggi dayo da koy làq souvent du ko fësal laylatul xadr yi ci la bokk moo tax kenn xamul kañ la dañuy nattale rek waaw dañuy nattale rek sayyidatuna Aïcha nag ne ko mo suñ waxatee su ma su fukki fan yu mujj yi jotee ba ma jàpp ne man tey guddi gii mooy laylatul xadri ci man loo may diggal ci pour ma def ko mbaa ma wax ko mu ne ko waaw yow de laaj nga lu am solo li rek li rek la borom xam-xam bi jëriñ yow de laaj nga lu am solo yonent bi daa bëggoon Aïcha may bëgg gi du daara da ko teg ci xam-xam rek ko moom yonent xam-xam la ko moom yonent xam-xam la moo tax da ko bëgg moom lool ndax xam-xam bu bëri bu mu am kon suñ technicien wax na ne li ñu cërale woon ci waxtu mat na zahaba zama wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insha allah dog jot na ci ngin ngi neew ak li ko war alhamdulilah doo xaji sul basa doo hadisul masa bismillah mbokk julit mbokk diwaanu gin ginaaw ak li ko wër yéen ñi bàyyi xel waa ngin ginaaw TV Saloum Info itam jël si waat ci programme bu am solo ci weeru koor gi fas yéene ànd ak yéen maanaam weeru koor gi yëpp di ngeen am seen émission hadisul masa muy émission bi wax ci diine julli koor ak ak mboolem seen i farata ak sunna ak yi nga xamante ni julit bu war na ko ci xam émission bi nag bi ne nag ñu ngi ci ànd ak oustaz Modou Cissé bu leen ko kenn